Yang ngi ci jàmm alhamdulilah ah gis ngeen ni ma def de bëccëgu weeru koor xam nga ku def ni <laughs> ah bàyyul boppam de yaa ngi ci jàmm alhamdulilah man daal soxna si euh, bi nga ma rombee ni dafa mel ni da nga maa maas courant euh, mënutuma sama bopp am cofeel trop nak ci yow sama mbëggeel sore ci yow trop nga doon sama seytaane ba tax na ma woo la pour expliquer ak yow fi mu toll nii yow mag nga tàndar may koor mat nga suukaru koor yow daal maanaam daal mat nga lépp wax dëgg yàlla te it yàqoo koor gi xam naa ne yaa ngi ci koor gi gis nga fi nga génn mu nooyee wax dëgg yàlla daal bëggal naa la sama bopp vraiment nag bu ma sañoon du ma dajeeg yow ci ay ruq di la woo mais comme fi laa dajeeg yow te temps amul il faut que ma expliquer ak yow euh, bu dee xaalis la bu ko xalaat am naa ko ba mu doy te mën naa koo joxe te joxe ko rek laay def man boo ma xoolee xam ne joxe kat damaa tàlli loo ma laaj ma jox la ko yow bis ni ki tey bul am lenn lu la metti

yéen bëccëgu weeru koor paa yu toll ni yéen demoo leen ca jàkk ja demoo leen ca jumaa ja yoroo leen seeni kurus di wër di kar xale yu jigéen di leen doxaan ma wax nga naan maan am naa xaalis am naa laa gis nga li ngay jaay man dama koy saraxe bu dee xaalis rek maa la ko ëppale daal di koy lem toog ci doxew ma ko waneew ma ko gis nga ñu ko am duñ ko wane baadoole yu mel ni yéen nga xamante ni si alal da leen a dab yéen ay dégg fii di raasaatu ci xale yu jigéen ñi man nag j'en fais dënd njëkk tay na muy tay ma romb la dem nga naan man ay sama dom li wala sama dom la ba nga né sama dom rek nga waroon sa xel tay ka bay ma ma dem est-ce yaang may dégg. ma ngi lay dégg kay mu amati nak yow yaa ma xamul waye man xamna bu baax ki tuyé kon xam ma yow solo talé len dara xoss yeur bi nga xam da nga koo dëpp. feeling la ki bu mako deppul dëppul te te kat yaang ci dëkk man sax du dama yor ay chèque motax mo dëkk pour poche bi nekk ci bir man ma lolu ku yor chèque du def caaya bu njaxas daal di jël yéreem dëpp ko def noiram waay mel ni mais yow lan moo la yëngal yow yow moo la war a yëngal yow yow man ya ngaa gar xaw ma yow la Kumba Gawlo Sekk di way di <laughs> taxawal yow yaa tax Kumba gaw la Sekk way suñu weetee nga wax ma lii lay yëngal dafa koo am ba mu doy sëkk sëkk nag nga baal ma <laughs> la sax te mu la ko servir woon doo soxla ba su keneen nga baal ma ndax dañoo nekk ci weeru koor yow sax la baalu mais yàlla laay baalu ndax ci weeru koor gi ñu nekk man bu ma yu xale yi laay dem wari mais soxla bu mag mag ñi de yow de molu téewoon nga la man man sama heure ay bomb ngay dégg ay bomb yu mat ay riti tiw tiw bomb ngay dégg ko couleuram yu bari ndugg da nga ma jox fi toll nii couleur yu bari ak saag bi dàll orange saag bu xonk yére bu am lu jaune am lu face bi ndugg de nga ma jox wala fourniture fourniture école yi <laughs> xam nga day am lu ne. sama ya moo def maa yaa ci jaw yaa ci toog di seetu de la sa poudre def ci ci sa kii wa cakas ah waaw wa ni nga def bax ni nak ay nak ma bëggoon ñu waxtaan hmm. daa am ku ma la bëggoon a ràng ràng daa am lu ma la bëggoon rang. ràng waaw am ko ma la bëggoon a may ah daa ko bëgg a may waaw waaw parce que ku baax la ku jullite sax. dañ na ko ba Abdoulahi lañ koy wooyee jaamu yàlla bi moo moo moo nekk fii moom moo nekk fii nii. moo nekk ci kër gi fii mu nekk booy bu kuul bu baax yow sax jarul nga koy nopp fi xel lekk ci sa wërsëg parce que kat naa la xamal leen de booy bu booy bi booy bu baax la booy bu baax la. koo may wax Abdoulaye. comme ah. c'est que dafa am ay wax ci ay hmm. mhm. dañuy des fois hmm. franchement am réputation bu baax il ah, ah dañuy dañuy organisé. il y a bon organisé il y a bon organisé nit y a, iman julli iman ta ta ta bon organisé. ko y a nit nit nit Sénégal ñoo nit ku baax kuy dem ñu wax ci yow lu ñaaw. Ah, bu dee moom alalam du ko boole kenn loolu moom ça se parce que xamante nañ mu ne lu ma bëgg a jël si buntu moom weeru koor bi jënd na ay ça se voit yu bari may ko ñii de. Ah. moo kii kii may ay ça se voit da nga xam nu mu toll. ça se voit kii day li muy utilisé ça se voit sax bariwul. maa ngi lay defal kii. kii ah. war naa jox 15 millions. 15 lay wàcc. kay bul bul bul bul kii yow cëppal rek. dinaa si xalaat. waaw waaw bu xalaat di yàgg de waxuma la xalaat yooyu tëdd di xalaat rek di xalaat rek saa bu nekk ne yaa ngi xalaat. waaw mais bàyyi ma xalaat ba pare rek de. Ah, waaw waaw waaw bu mu yàgg de. du yàgg du yàgg xanaa après bu ñu dogoon nañu waxtaan. ah kon baax na kon nii dañoo war moom. waaw am na yoo xam ne ah, waaw après ndogu rek incha allah. xaaral wax asafurlah li jot a jàll. waaw garaaw dañ la koy baax. jërëjëf ah. <laughs> baax na ci kanam waaw.